alxaaji abdul xamid kan moo ca xeer wa qaboolu fu may jaar soxlawu xool fu may jaar kaala gii laay jël takk ko ci samay bët dama fas yéene daw rek ba Tiwaawan xooluma pakk xooluma teen xooluma géej xooluma montagne foo ma jaarale rek baax na sama bakkan bu desee ci àll bi ma xam ne ci def naa ko ngir topp sama ndigalal sëriñ nee na jël kaara gi rek takk ci bët yi ba mu dëgër rek mu commencé fiddi nee na tuuti la ko def rek dégg mbooloo mu naan ko yow defal ndànk yaa ngi daanu ci suñ kaw defal ndànk nee na mu tekki kaala gi ndekete boobu yegg si na ci waawan fi Seydi Hadji di jàngale fekk fi Maodo di jàngalee ci daara ji mu ne mu tekki bët yi ñu ne ko defal ndànk yaa ngi daanu ci kaw nit ñi foo jógee yow nee na Maodo ne bàyyi leen ko bismillah yegg si nee na mu gi mu génnee lettre bi jox ko mu ne Maodo ne ko ah yow sa xel yi metti na di naka naka góor ga mbaa deful dara mu ne ko deful dara nee mu génnee lettre bi jox ko bi mu génnee lettre bi jox ko Maodo jàng jàng jàng gis yëpp wëlbati leetar bi tontu ko ci gannaaw lem ko ne ko demal nga xaar ma ci biir néeg bi maa ngi ñëw ni nga ñëwee bu ko delloo kon xam nga ne xam na ni mu ñëwee mu ne ko ni nga ñëwee bu ko delloo. demal nga xaar ma ba julli timis ba julli gee ba pare ma yeewi la <laughs> loolu gën a garaaw nee mu dem noppalu ñu defaral ko teraanga julli timis julli gee Maodo woo ko mu ñëw mu ne ko ah fitna nga ñëwee waaye bu ko delloo danaa la jox benn baat waaye bu ko jox kenn waxtu wu la sa sëriñ yónneete lu mel nii wax ko rek dem sa yoon maa ngi la ko may nag ci sa barke sëriñ mu ne mu ne ko waaw Maodo wax ko baat bi ne ko nag da ngay génn boo demee ba génn Tiwaawan na nga defoon nga defaat ko xoolal sa ndeyjoor bu la kenn gisul nga xool sa càmmoñ bu la kenn gisul nga xool sa kanam ak gannaaw kenn gisul la gëmmal ndànk rek bul gëmm sax bu baax gëmmal ndànk wax baat bi rek xoolaat mu dem ba génn Tiwaawan xool ndeyjoor càmmoñ kanam gannaaw gisul kenn mu gëmm ndànk wax baat bi xoolaat gis boppam ci kanamu sëriñ bi ca xaay fekk sëriñ baa ngi waxoon taalibe yi toog leen xaar ko xam naa ne lu mu guddi guddi dana ñëw ñu jékki-jékki rek gis mu ne cëpp ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi ne ko dem nga ba ñëw mu ne ko waaw mu ne taalibe yi nag kii moo ñeme yàlla kii moo mën a kàcc diggante bii fël na fi mën a demee Tiwaawan bi ñëw li may wax Thierno bashir moo may nettali de te ku ci am benn werante rek demal ci Thierno Bachiru Taal ca Louga mu ngi dund te yal na yàlla dolli ay fanam nga laaj ko ne lii Chérif Ibrahima nettali dëgg la wala du dëgg nee na sëriñ bi ne ko yéen yéen mënuleen kañ waaye bu leen tëlal keneen moom nee na dem na ba ñëw bàyyi leen ko mu wax góor gi ne ko ana Seydi El Hadji mu ne ko mu nga fa rek di baax lum wax nee mu génnee lettre bi jox ko nee sëriñ bi balaa mu koy ubbi ne taalibe yi ndax xam ngeen mbindum Maodo xàmmee ngeen ko ñu ne waaw mu ubbi lettre bi gis moom mbindam ba pare wëlbati ci ginnaaw gis muy tontu Seydil Hadji Malick mu wan ne leen lii du Maodo ñu ne ko mu ne dem na ba ñëw mu ne sëriñ bi nag doon leen wax ne xam ngeen lu ma doon seet mu ne dama doon seet fu seen pas-pas toll ak kan moo ma war a doon waaye bés ni tey lu ne woon ci man def naa ko ci Chérif Makhtar ndax moo nangu lu ñëpp bañoon mu ne Chérif Makhtar boobu wëññeekuwaat nag ñëw ci Seydi xaj Malick ngir am secret yu mu bëgg Maodo jox ko ko Maodo ne ko ànd naa ci waaye da ngay dem ba Faas fa Seydina Cheikh tëdd nga def fa dog yi soo demee soo ko defee danañ la jox mboolem kunnaas yi na Cheikh amoon nga indil ma ko ci loolu laay charte wanteeg yow door laa jox li nga ma laaj ngóor gi maxtaar ne ko baax na mu wax ko yam soxla jox ko turi yàlla yam ko war a jox jox ko dog yim ko war a jox ne ko boo demee ci raw ca rawdu Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yi nanga ko def bi Chérif Maxtaar yeggee ba ca Faas boobu mu ngi fekk ñaari sëtu Seydina Cheikh ñu ngi tongoo ay at ñoo bokk di nekk ci zawiya bi waaye duñ tuddante góor gi ñëw dem ci si dem ca rawdu ba def la ko Seydal Xaaji Malick waxoon ñetti fan la ko la fa def ñetteeli fan bi ñaari sëti Seydina Cheikh yooyu ñëw fekk ko ci zawiya bi ne ko suñu maam Cheikh Seydina Cheikh nee na ñu ñëw seet si la nga jubale ñu mu jubale leen ñu ne ko Seydina Cheikh nee na ñu yëkkati kunaas yi mu amoon yépp ba ci kaas bi mu doon naanee ak lépp lu fi ne woon ci ay kunaas nañ ko jël jox la ko nga joxal ko ko Seydi El Hadji Malick kon la Maodo bëggoon amut mu ne ñu jël yépp def ko ci waxande ku naasiyaak ba ci kaas bi Seydina Cheikh daan naane yépp dañ ko jël def ko ci waxande jox ko Chérif Maxtaar mu indil ko Seydi El Hadji Malick sëñ daan na wax ne kaas boobu ba tey mu ngi mu ngi ci néeg Seydi El Hadji Malick kon Euh, yooyu yëpp niru na wilaaya fekk wilaaya la sax niru na it euh, xar baax mooy kiraama miracle waaye fekk lu lu laajoon Maodo def ko mu def ko la fa tabarakallahu moo lay won ne bu dee wilaaya it kenn werantewul wilaaya ak Seyd Alxaaji Malik waaye moom dafa dafa tànnoon nëbb wilaayam feeñal ak àlluwaam ba pour nit mën a nekk wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wuutu Seydina Cheikh wuutu eh, yàlla ci kaw suuf nekk xutbu nekk al fardu nekk al jaami kooku pour nga nekk ko dafa am ay charte charte yooyu yëpp dafa daje ci Seydil Hadj Malick ndax xutbu yi juróom-ñaar la ñuy doon mafatihul kunuz yi juróom-ñaar la ñuy doon maanaam xutbu yi set la ñuy doon mafatihul kunuz yi set ma mafaatihul kunuz yi mu ñoom boo leen déggee ñoom ñooy séddale trésoru yàlla moo mooy li yàlla wax ne walillahi xazainu samawati wal ard yàlla moo moom trésoru asamaan ak suuf trésor yooyu nag nga xam ne yàllaa ko moom cinq 5000 francs bi nga am yow def ci sa poche ak compte ba nga bàyyi ca banque ba léeg-léeg nga retiré ko carte léeg-léeg nga retiré ko chèque yaakaar ne yaa ko moom loo am ci wërsëg balaa moo ñëw xutbu yooyu ñoo koy désigner set xutbu yi ñooy njëkk a désigner buñ désigner jox ko mafaatiwul kunuus yi mafaatiwul kunuus yi ay xutbu lañ ñoom itam yaa ngi koy déggee soo ko bëggoon a dégg tey yaa ngi koy misaalee comme ministre ah ak ministre délégué ndax comprendre nga waaw ah, ministre ak ministre délégué xam nga du pouvoir yi du benn ministre mooy mooy mooy am ministère nekk ministre plein ministre délégué yéen jàng ngeen tubaab xam ngeen ko voilà dana am turi ministre bi waaye du am ministère dina am fonction nag ma mafaatihul kunuuz yi nag noonu lañu utee ak xutbu yi ñoom ñëpp ay xutbu lañ waaye bokku ma xutbu yi al aqtaab yi ñoom ñoo coiffé ñoom ñoo ko coiffé mafatihul kunuz yi fa tabarakallahu moo tax Seyd Alxaaji Malik nag la daloon sëriñam Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiallahu taala an moo ko dal ndax Seydina Cheikh radiallahu taala anhu yàlla dafa dogal bi muy toll ci wàllu wilaaya mu ñaanoon yàlla pour bokk ci xutbu yi bi mu ñaanee yàlla bokk ci xutbu yi ñu boole ko ci mafatihul kunuuz yi ndax boobu yaakaaroon na ni mafatihul kunuuz yi ñoo ëpp doole xutbu yi ndax lan xam nga dépense jox ko nit la ca nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na benn tibb nga jox ko nit mu lekk ko moo gën nga tabax junniy jàkka xam nga loolu bari na junniy jàkka tiyaabu ba ca nekk mu ne nga jox nit benn tibb mu lekk ko moo ko gën Seydina Cheikh gis na nag dépense ak jox nit ki muy faj aajom dara ëpp ko mu ñaan yàlla bokk ci mafaatihul kunuuz yi bam ca bokkee mu mujj yëg ne ndekete woo mafaatihul kunuuz yi xut bu yee leen ko afe te moom mosul bëgg lu tuuti moom Seydina Cheikh mu gis maamam sallallahu alayhi wa sallam gisee maamam ne ko ah am na lu xew de mu ne ko waaw mu ne ko man dama foogoon ni mafaatihul kunuuz yi ñoo ëpp doole xutbu yi waaye ndekete xutbu yi ñoo leen yilif te man bëgguma kenn yilif ma yonent bi ne ko ah post la boo xam ne nag kenn du ko cumuler maanaam doo bokk ci mafaatihul kunuuz yi bokk ci xutbu yi benn rek nga ciy mën a nekk te xes nga nekk bële ba pare mu ne ko déedéet mu ne ko yow loo bëgg ci yàlla yàlla def ko waxal ma sa borom man may njëlbeeni nit tey nit bu bokk ci xutbu yi bokk ci mafatihul kunuzi wax ko sa borom boo ko ko waxee dana ko nangu te loolu mooy dëgg yonent bi laaj boromam borom boromam ne ko nangul naa la ko waaye ci moom lay tàmbalee ci moom lay yem moo tax Seydina Cheikh mooy seule personne bu bokk ci mafatihul kunuuz yi bokk ci aktaab yi keneen amaatu ko comme taxuñu waxtaanuñ ci Seydina Cheikh xam naa danañ ci waxtaan beneen yoon ni ngeen ko sàkkoo waaye fa tabaarakallaahu Seyd El Hadji Malick pour nga bokk ci xutbu yooyu nag dafa am condition yooyu remplir pour bokk ci Maodo nag remplir na yëpp mu ngi mel ni pour dem université foog nga am bac boo amul bag doo dem iniversité am na yoo xam ne pour nga nekk ko pour nga am ko dañ la naan bac plus yaa xam plus lan lañ lay laaj xutbu nag pour nga nekk ko dafa am critère yoo xam ne. alfardul jaami pour pour nga nekk ko foog nga remplir ko mooy lan foog nga nekkub jullit ku dul jullit moom kenn waxul sa wilaaya wala wilaaya seytaan lay doon waaye foog nga nekkub tiijaan fardul jaami foog na foog nga nekk tiijaan kenn du ko nekk te nekkoo tiijaan déglul bi li may wax bu baax yeneen xutbu yi nag mën nga ko nekk waaye al xutbu al fardu al jaami ba Seydina Cheikh nekkoon Cheikh Omar Fouti nekk ko Cheikh Momdal Ghali nekk ko maam alfa nekk ko Seydi Alaaji Malik nekk ko Sidi Ahmed nekk ko sëñ Babacar Si nekk ko Seydi Hadji Abdou Aziz nekk ko loolu pour nga nekk ko condition yi ngay remplir foog nga nekk Tijaan d'abord boo nekkee Tijaan nekk nga julli waaw kenn du nekk Tijaan te nekkoo nga nekk Tijaan foog nga nekk shérif foog nga doon alxasan yi bokk ci shérif bu jokk ci seydina xasan maanaam geñoom bokk ci waa kër seydina xasan ndax yonent bi ñaari doomam yooyu juru shérif yépp seydina xasan ak seydina useynu pour nga nekk ko nag fokk nga nekk shériful xasan yi moo tax bu ñuy tagg seydina cheikh naan as shariful xasan yi cheikh seyd alxaaji malik la ma ca jublu mooy tiijaan la woon xutbu la woon fardu jaamin la fardul jaami la woon ndax shérif la woon alxasani la woon waaye sëñ Abdou Aziz moo ñu nettali mu ne Maodo dafa taamu woon nëbb ak shérifam shérifu deretam dafa taamu woon nëbb ko feeñal bu feeñal shérifu shérif sharafu tiin ak sharafu diin moo am nekk shérif ci deret ak nekk shérif ci xam-xam Maodo nag taamu nëbb bu deret bi te feeñal bu xam-xam bi waaye ñaar yëpp la kimile woon moo tax Seydi Xaaji Malik xutbu la woon al fardu al jaami Cerno Yaxya lii bii ma doon wax nettali na ma ci gémmiñam ne ma ah, baaba neexul a jot ci wilaya de waxuma xutbul fardul jaami kese mu ne waaye ba mu génnee àddina ba tey am na 16 wilayaam boo xam ne mu ngi ci jaww ji di flotte kenn toogu ci mu ne li doomam yi di baax baax baax benn doomam toogu ci kon ci ngay xam ne Seydi El Hadji Malick beneen dimension la sëñ Babacar rek ni mel ci wilaaya maara dey taali te Cerno Yaxya mi ko wax foog nga xam kuy Cerno Yaxya moom wax ci gémmiñam moom Cerno Yaxya mu ne turu yàlla wi nga xam ne ku ko xam seize monde yi balaa ci yàlla di def dara diisoog yow maanaam yëgal la ne suba danaa def nangam mu ne ba muy xam turu yàlla woowu dix-huit ans la te booba du tiijaan nee na booba baaba duma ma tiijaan de mu ne ma yàlla ñaata monde la am ma ne ko ah sallallahu alayhi wa sallam danee na yàlla am na 124000 monde mu correspondre ak 124000 yonent yi correspondre ak 124000 pores yi nekk ci yaramu doomu aadama mu ne ma booba nag fekk na 16 monde yi àddina ak boo leen boolee benn la ci monde yooyu mu ne balaa ci de yàlla di def dara dana diisoog man yaxya mu ne te booba duma tiijaan de xaadir la mu ne ba ma demee ba am lu ma bëgg wax ko yonent bi yàqazatan yonent bi toog ma ne ko nangam ak nangam ak nangam laa bëgg mu ne ma loolu mënoo ko am te nekkoo tiijaan mu ne ci laa daw fuuta ci sama maam ñaan fa wird maam ma aw mu ne ba mu ne ma baaba yéen a am lu bon tàkkusaan bi ma ñaanee wird laa yéeg ci maqaam yi ma bëggoon kon foog nga xam kuy Cerno Yaxya li pour mën a xam li Maodo wax moo tax ma entre parenthèse ma dugal Cerno Yaxya li ci diggante bi Cerno Yaxya li boobu nag mos na ñu toog di waxtaan ak moom man ak moom ak yeneen kilifa yu ma àndaloon muy wax ci Seydi El Hadji di ci waxtaan di ci waxtaan ba mu yàgg mu ne baaba def leen ndànk ñu mu ne ma Maodo ngi nii di romb fi ñu toog di wax mu ne ah, baaba def leen ndànk li may wax yëpp Maodo ngi nii di yegg si mu ne mu ngi nii jaar na fi mu ngi nii di dem nee na màkkatal mukarram la jëm day ziyaara ji yonent bi nee na daf fi jaaroon rek pour ziyaar ñu gisu leen ko ma ne ko déedéet mu ne ci sa tànk yi la jaar mu ngi toll ci waxana waxambaane woo am ñaar fukki ak juróom foog nga xam koy Cerno Yaxya pour mën a xam li mu wax ci Seyd El Hadji Malick moo tax mu ne Maodo am na wilaaya chaise wilaayam boo xam ne mu ngi flotté ci jaww ji kenn toogu ci moo lay won ne wilaaya Seyd El Hadji Malick fa mu yegg sorina na fa tabaarakallaahu Maodo moomu nag nga xam ne waxuma la sax nekk nitu yàlla waaye nekkoon na xutbul fardul jaami te xutbul fardul jaami moo coiffé mbooleem xutbu yi mooy seen chef mafaatihul kunuuz yi set lañ ni ma la ko waxee léegi aqtaab yi set lañ boo boole muy 14 muy 14 xarafu abajada yi abajada yi alif ba taa saa 28 lettres la 14 yi mooy nuuraaniya moom la ñuy wax lettre nuuraaniya les lettres lumière yeneen 14 yi mooy zulmaniya mooy eh, lettres yi nga xam ne ay lëndëm lañ lëndëm yi lettres yooyu nga xam ne ay lëndëm lañ ci la seytaan yi di dund njaberkat yi ci la ñuy njaber ñiy def yëpp ci la ñuy def 14 yi nga xam ne moom la ñuy wax les lumières 14 lumières yi wali yëpp ci la ñuy def li ñuy def moo tax wali yu boo gis muy wali yu rahmaan am na wali yu seytaane bu taxaw fale bu ko mënalut dara parce que mooy tax équilibre am wa kullu shay'in indahu bi miqdaar yàlla ne lu ne dama ko def ba mu am équilibre moo tax waliyu seytaan waliyu rahmaan mënalu ko dara bu yéexee sax waliyu seytaan duma ko boo ëllëgee nag foofa lay waliyu rahmaan ñu xam ne du moromam wala sax balaa ëllëg balaa ñoo dee rek ñu xam ne kii waliyu rahmaan la wala waliyu seytaan la ndax waliyu rahmaan nu muy gën a magee wilaayam di gën a bees mbiram di gën a yokk wala yu seytaane nu muy gën a magee ay mbiram di gën a rës muy gën di alku njaberkat yi fi newoon yëpp anañu kenn tuddatu leen ana Seydi Hadji boo de ba léegi nit ñaa ngi koy siyaar moo indi waxtaan wi ana Sëriñ Tuuba ba léegi nit ñaa ngi koy ziyaar ah ana Cheikh na Cheikh Saad bu ba léegi nit ñaa ngi koy ziyaar ana Limaamu Laay ñoo ñooy wali yu rahman ana wali yu seytaane yi ñu fi nekkaloon kenn diggatu leen xamatuñ sax fu ñu féete voilà moo tax Seydal Hadji Malick nag ci wilaya occupé woon na occupé woon na siège boobu siège boobu nga xam ne moom la ñuy wax al maqamatul uzma mooy maqam bi gën a kawe ci wilaya nekk xutbul fardul jaami moo tax Seydal Hadji malik daan na wax ne ah comme waxtaan waa ngi waaj jeex dix minutes rek a ci des moom lay mottale daan na wax ni jàpp leen ci li ma leen jox ba ëllëg teg leen seen tànk ci sharia ak sunna bi ëllëg bu leen woote dara ci tarixa bi ba ëllëg nekk leen jullit nekk leen taalibe ba ëllëg ku gis yonent bi ngeen gis ko ku ko gisul ngeen gis ko mu ne daan na wax ni sëñ Abdu nee na daan na wax ne ah doom su ma yàlla nanguloon benn salaatul faati benn peri salaatul faati ma gàddu ma gàddu bàkkaaru xeetu yonent bi yépp danaa gàddu seen bàkkaar ci kanamu yàlla ëllëg plaideel leen layal leen bi ñoom ñépp ñu dem àjjana ma ànd ak ñoom dem àjjana ci benn salaatul faati eh, sëñ Abdou nee na mujj dundam nag xaal bi dafa yokk woon moo taxoon ca la woowe woon sëñ Babacar si radiyallahu taala an ni ko ah seen jamono bii day toll na foo xam ne bëgg naa dem bàyyee leen ko ndax daal yi ci nekk daal doy na waar <laughs> ndem jamono booba la doyoon waar waxu fa ak léegi kon ñun alku nañ hmm? mu ne ko waaye am na ñaari téere yu ma tàmbali gis nga xilaas bii li muy rëy rëy rëy ci 20 jours la ko Seydi Hadj Malick taalif ñaar fukki fan 20 jours weesuwu ko te géñ na ne bind bi mu ko bindee ba pare dafa géñ ne fu xilaas fanaan yonent baa nga fa fanaan mu ne ko maa ngi bind ñaari téere maa ngi koy taalif demal ndar mottalil ma sama zawiya ba su zawiya ba yeggee tu ñaari téere yi yegg ma bàyyee leen seen àddina dem kon ñooñu bëgguñu woon dund hmm? mu ne ko mooy ban mu ne ko mooy kifaayatu raaxibiin ak ifhaamul munkir aljaani ñaar yëpp professeur alxaaji rawaan mbay mu baax mi le def na traduction bi di ko jaay cinquante mille francs fa tabaarakallah téere yu baax lañ waaw al ifhaamul al jaani ak kifaayatu raaxibin daf ko def nag trois tomes tome bu njëkk bi daf ci wax jaar jaaru Seyd al Xaaji Malik ak njobootam deuxième tome bi nag ci def ifhaam beneen bi mu def ci fa euh, ifhaamul munkir al jaani beneen bi kifaayatu raaxibin waaw mu taalif ko ci sharia ak sunna bii mu taalif ko ci tariqa bi ndax ñi koy contre gis na kon ñaar ñaar yooyu la Maodo mujj a défendre bi mu taalif ci wàllu charia bi dafa ne sëñ Babacar si maa ngi koy taalif balaa ko doomu soxna yi di yër ba di ko gis di ma saaga fekk bàyyee naa leen seen àddina dem ndax loo xalaat ci Sénégal lu bon lu ne Sénégal Maodo def na ko ci mooy kifaayatu raaxibiin loo xalaat lu bon lu ne Sénégal rek Maodo def na ko ci caga ji taxawaalu sëriñ si lekk àddiya ñii woote ñii takk juróomi jabar waxuma la fukki jabar lu ne loo xalaat luy sikku Sénégal rek Seydi Hadji Malick def na ko ci téere bi moo taxoon mu ne sëñ Babacar si balaa ko doomi soxna yi di yër ba xam li ci nekk fekk dem naa sama yoon balaa ñu maa saaga fekk dem naa ifhamul munkir al jaani lépp lu ñuy contrer tarixa bi di ko contester ci tarixa bi rek Maodo indi na ko ba pare nag defendre ko bi nga xamee ne ñaari téere yooyu yegg na ngoon si mu yeggee la sëñ baaba kër si ñëw ne ko zawiya ba yegg na mu ne ko alhamdulilah sama téere yi yegg na kon nag tuutee ci des rek xaar leen ma bàyyi leen seen àddina dem wax nañ ne une semaine la ci teg ñii ne ñaar fukki fan weesu wu ko wuy ji boromam nee na nag bi sëñ baaba Babacar si delluwaatee ndar tuuti la fa toog ñu woo ko ne ko ah góor gi kat yaram mi dafa xaw a tàng na nga jege si mu ne fekk lu jiitu loolu sax mag ñi daal ñoo njëkk a yónnee ne ko si boo yeboo nga ñëw góor gi kenn mënatu la wax ak moom ñu ne lu tax mu ne dafa tàng jër mu ne waa baax na maa ngi ñëw mu ne sëñ Babacar si ñëw ne ko si ah, mag ñi de nañ sa daa tàng ba kenn mënut wax ak yow mu ne ko yan mag mu ne ko nit ñi nit ñëpp ko wax mu ne ko yan nit mu ne ko ah kon Maodo de ak ay nit mu ne ko wax ma yenn nit Maodo de gisul nit mbaadu ñi fi ñi ci kër gi waaw mu ne mu ne gisuma ci nit moo tax gisuma ci ku ma mën a waxal Serigne Cheikh Tidiane si nag moo ko firi kumel ni Serigne Aline Gueye ñoo ko waroon góor gi njoogu mag ñu baax ñooñu ñëpp nga Baba ma Cissé ca nga ne gisoo nit Serigne Cheikh nee na booba la Maodo la ca Maodo jublu lii may wax it Serigne Cheikh a ko nettali ma dégg mu ne la ca Maodo jublu mooy dafa foogoon ne yegg nañ ci martaba boo xam ne wax ak ñi ci bàmmeel yi moo leen gënal wax ak ñi ci biti te gis nga nit fekk yeggul foofu parce que fekk mënoo di wax ak ñi ci bàmmeel yi sa wilaaya des na weesu woo yit di juum parce que ñi ci biti koo ci waxal mu dugal la ci kàmb waaye ñi ci bàmmeel koo ci waxal mu wax la ci dëgg parce que ñoo nekk ci dëgg moo tax ku dee ñu ne dem na ca këru dëgg wala déet waaw ñun ñoo nekk ci këru fen naxante njuuj njaay ak euh, lekk sa xaalis dafa dóor dàqe fii mooy këru naxante moo tax Maodo ne ko nag li ma yaakaaroon ci ñoom gisuma ko donte nag baax nañ trop waaye foogoon naa ne yegg nañ ci di wax ak waa bàmmeel di composer ak ñoom di leen déglu comme ñu noonu nag ma téye sama njàmbur ci ñoom mu ne ko lii rek la ndax yiñ may laaj benn fayda amu ci mu ne sëñ Babacar génn rek ne leen ah, man de waxuma man maa ngay ñibbi man ah, nee na mag ñi ne ko lu mu wax mu ne man de waxuma maa ngay ñibbi dellu ndar nee ñetti fan la fa am ñu ne ko ñibbisil góor gi yaram wi tàng na nee na sëñ si ñëw xool xam ne kii day dem mu yónnee ne sëñ Abdou na ñëw Cheikh El Hadj Abdou yónnee ci El Hadj Mansour yónnee ci Thierno Saïdou Nour mag ñëpp ñëw toog mu ne sëñ du yow lenn rek laa la sas yaasin bu jeex jëlal bu beneen sëñ Abdou ne ma toogoon ci bopp Seydi Hadj Malick yaasin bu jeex mu jàng beneen lu dul waxtu yi julli mu ne Seydi Hadj Malick jékki-jékki ne ko ah Babacar lenn rek a ma jaaxal ci yow li ma bëgg ci yow yépp mat na ndax wax naa mag ñi ba nangul nañ ma ne fii ma toogee tey yaa ma fiy wutu waaye du man la neex moo tax waaye ci tënk Seydi El Hadji balaa moo dem xam na ne doomam yépp ay xalifaam ne ci la bindoon leetar jox ko góor gu ñuy wax góorug naar gu baax muqaddam ci tariqa bi al muqaddamul kabir ku ñuy wax Cheikh Soukayri boobu Cheikh Soukayri cinq minutes ci des de Cheikh Soukayri wax ne wax nañ ne am na xalwa yoo xam ne bu ko daan def dafa am lu muy wax suuf si ubbeeku mu dugg ci biir mu waxaat ko suuf si tëju mu def fa la mu bëgg a def waxaat ko suuf ubbeeku mu génn mu bind lettre Seydi El Hadji malik ne ko dama bëggoon ñaan naa ko yàlla waaye yàlla moom fala yamanu makrallahi illa al xawmul xaasiruun kenn du wóolu pexem yàlla dama bëggoon daal nga laajal ma yàlla ndax li ma ko ñaan nangul na ma ko lettre ba mu ngi ko tàmbalee ci min baadi abi ah min baadi abi bakrin summa mansour wa abdul azizi summa habibi ba xasida bi jeex moo tax ñu ne Maodo li mu bind sax xam na ko ñim def summa ñëpp kenn toogu fi min baadi abi bakarin xam nga booba Seydi Ahmed dem na waaye xalifaam la woon loolu la ñuy wax ci tariqa bi xilaafatul haaroniya da ngay donn nit ki fekk mu ngi dund ni yonti yàlla Moussa meloon ak yonti yàlla Haaroon moo tax ñu naan xilaafatul haaroniya loolu beneen domaine la dinaa ci wax bu ñuy wax ci Seydina Cheikh dafa am ci tariqa bi lu ñuy wax xilaafatul haruniya da ngay donn nit ki fekk mu ngi dund moo daloon Seydina Cheikh ak Aliou Haradim Barada xalifaam la woon waaye Aliou Haradim Barada moo njëkk faatu wa hakaza Seydi Hadji Malick it Sidi Ahmed xalifaam la woon moo njëkk a faatu moo tax mu ne min baadi abi bakrin summa Mansour wa Abdul Azizi summa Habibi sama gannaaw daal Babacar su ca topp Mansour Abdul Aziz ak Habib gis nga alaaji Mansour une semaine la fi def sëñ Habib jotul toog xilaafatul haaruniya la ci Cerno Yaxya li mii ma doon wax moom ma wax ci gémmiñam ne ma ah, baaba hmm, Habib min al mafatihul kunuz Cerno Yaxya ma ko wax ci gémmiñam mu ne ma alaaji Habib min al mafatihul kunuz min al mafatihul kunuz sëñ Abdou moomu eh, Seydi Hadj Malick moomu nag bi mu bindee lettre jox Sukayri Sukayri dugg rek génnaat tontu ko yónnee ne ko moo ma gën a xam li muy laaj bi ma yónnante bi nee na wax nañ ko ko ba dégg na ko doomam yëpp xalifa am lañ sëtam yëpp ay xalifa am lañ moo tax ñii ñu yaakaar xalif général de Tidiane daf ñu neex rek ñu ne Tiwaawan xalif général de Tidiane déedéet loolu dinaa ci ñëw beneen bu may wax ci Seydina Cheikh lan mooy xalifa ak xilaafa nuñ koy jotee incha allahu taala yàlla def nag sëñ Babacar ne biñ ñëwee ba toog mu ne Seydi Xaaji Malik ne alhamdulilahi rabbil alamin maa waxoon ni su ma yàlla nanguloon benn peri salaatul faati ma gàddu bàkkaaru xeetu yonent bi yépp ëllëg ci kanamu yàlla plaideel leen mooy layal leen ñoom ñëpp ñu rëcc ma ànd ak ñoom dem àjjan mu ne ko waaw mu ne boobu Cerno Saydu Nuuroo ngi toog sëñ baabakër si mu ngi toog mag ñépp ñu ngi toog mu ne sëñ Babacar si a ngi toog Cerno Saydu nuroo ngi toog alaaji Mansour a ngi toog alaaji Abdoo ngi toog alaaji Abiba ngi toog ak Seydal Xaaji Malik juróom benneel la mu ne Seydal Xaaji Malik ne ana ana ana lii may wax it Cerno Bachir dëggalal na ma ko mu ne ko maa ngi mu ne ko tegal sa loxo ndeyjoor mu ne Cerno Saydu teg loxo ndeyjooram ci suuf ci kaw lal bi mu ne Babacar sëñ Babacar lay wax mu ne ko tegal sa loxo ndeyjoor mu ne sëñ Babacar teg loxoom ci kaw loxol Cerno Saydu Nuur mu ne Mansour muy alxaaji Mansour mu jël loxoom teg loxo ndeyjooram ci kaw loxol sëñ Babacar si mu ne Abdou sëñ Abdou jël loxo ndeyjooram teg ci kaw loxo alxaaji Mansour mu ne Habib mu ne sëñ Habib jël loxo ndeyjooram teg ci kaw loxo sëñ Abdou mu ne fekk Seydi Hadji Malick a ngi jiital loxo ñam càmmoñam Cerno Saydu Nuuru teg ci kaw mu ne mu yëkkati loxo ndeyjooram ba moom Seydi Alxaaji maalik teg ci seen kaw loxo yi yëkkati jaay ko ñetti yoon ne insha allahu nii rek nii rek nii rek ba àjjana nee na ba mu tegee nag ca la génnee kurusam ne alhamdulillahi rabbil alamin yonent baa ngi nii taxaw Cheikh Sidi Ahmad Tidiane nii mu ngi nii taxaw ne na ñu ma yow Malick dalalal sa xel sa borom nee na amul benn salaatul faatihi boobu mos rotal te yàlla nanguwu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.